لا لا لا لا asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki ñu ngi leen nuyu te leen ziar di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa waaye noonu leen ziaraa mboolem kilifa yi diine yi ak kilifa yi seen mbokkum taalibe la sëriñ Saalihu Gaye Badar li waral kàddu yi nag weesul xew-xew yi nga xam ne am na ci réew mi rawat na ndaw ñi nga xam ni ñu ngi dugg ci gaal yi tàbbi ci géej gi ngir génn réew mi ngir lan faj sox seeni soxla faj soxla seeni njaboot faj soxla seeni waajur te jàpp nañu fii ñu ngi ci réew mi rek duñ ko mën di gën a indi nag jamono ju naqare ji mooy corona bi gis nañ ñu bare bare ci ndaw ñi amatuñ liggéey ba ñu bare bare ñoo fay kër yi nga xam ne luyoo ko ndax ñu bari ci ndaw ñi fi dañoo luyee ñoo jox seeni doom fay ñu jàng mu am na ci ñoo xam ne sax ñoo joxe dépense néewaale nga génn doxo yitte ba ñëw te ndaw dabu la ñaan la lu mu dimbali ko loolu nag lay wan jamono ju naqari ndax ndaw yi Sénégal yaafu suñ bëgg liggéey lañu lu nek dañ koy liggéey ngir teral seen njaboot waaye corona bi tax na ñu bare bari ñàkk seen liggéey lii nag boo amee ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi dañoo war a taxaw lu musta am boo amee ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi war nañoo taxaw nag waxaat ak ndaw ñi teg leen ci programme boo xam dina tax ñu am yaakaar ngir mën a toog ci réew mi waaye doo toog rek di xoole mel ni dara amut li gën a tax nag ñuy wax mooy sëñ bas mi nga xam ne sëriñ Muntaxa moo ko waxloo sëñ ku ne gis na taxawaay bi nga xam ni am na ko bi korona bi amee li nga xam ne jël na ko jox ko Macky ngir mu dimbandikoo ko moo gën a néew ci lim ci def boo demee Touba ñi nga xam ni ay daara alxuraan lañ fu baree bare dugal na fa loxoom ngir ñu dund jànkat xasida yi noonu la leen joxe dund noonu la ko joxee néew doole yi boo demee ci sancaane noonu la fa séddale dund weesu loolu daal di wax murid yi nañ dimbalante ci suñu biir taxawaay mel noonu ku ko mën a am ci yéeg ni rek nit ñaa ngi xiif nga mën a taxaw taxawaay bi mel noonu rawat na nag nga yéeg ni nag say taalib yaa ngi dee ci ndox ngir lan ngir génn réew mi lii moo waral mu wax sëñ basum Cheikh Abdou Khadir ni ko nga wax ak ndaw ñi ni leen ñu toog ci réew mi lii mooy message bi nga xam ne moom la ko yónni woon léegi-léegi nag nga dégg ci ku ne di daal sëñ bas ba dégg nga ci ñuy wax naan sëñ basum Cheikh Abdou Khadir kat daa waroon wax ak Macky Sall ak daa waroon wax ak nangam nangam ba tey maa ngi gis benn vidéo boo xam ne am na ko ko dugal maa ngi si commentaire ba naa commentaire ba am ku ko kilifa nii nga doxee lay doxee muy laa waral wax ak Macky Sall ak nangam nangam waaye kooku wax ak Macky Sall foofu la mën a yegg ci moom mun ta wax Macky mënut a jug fii dem pale ngir gis Macky Sall déedéet mënut a jël téléphone woo Macky Sall muyu ko déedéet waaye ki nga xam nag bu jëlee téléphone am woo Macky ni ko léeg-léeg li la sëñ bi bëgg waxam message am jàll na est ce que jar na muy toog ci télé di ko def. sëñ Mountakha nag ku nekk xam na taxawaay bi mu am ci réew mi rawat na ci ndaw ñi ñooñu nga xam ne faatu nañ ca mbéng ci niñ ko gisee moo ci njëkk jël alalam def ca wess lol nak, wax lo rakam yi nga xam moy kaddom ngir ndaw ñi tok bay melni ni dutul am wax ja nañu jël ko willi pande ko lu nekk ñu wax ko ci siñ bas siñ bass nak yenn joti sa du ko mut ndax yittem wessut dox soxla siñ muntaxaa yittem wessut dox soxla murit ñaari ci lay jaabante li wax na weesu na porpora bu dee porpora moy jàll ay cadre wess nako ndax mbooleem nal yo xamni ne siñ nal nako te mu ci bass la ko tek moo cay def moo cay dindi moo cay dem moo cay dikk ba mu sotti te bu sottee nag murid yëpp ci bëgg murid yëpp ci sagu kon ko mel noonu murid yëpp ko war a ñag te man wax ji sax lu ci ñaaw dama ko ciy gisut mu Muntaxa gis na taalibe yi nga xam ni ak njabootam lañ dugg ci géej ji di faatu tam na naqari ko lool mu yónnee Sëñ Bass Abdou Khadre ngir mu wax ak ñoom ñu toog ci réew mi te muñ Sëñ Bass doo leen yedd doo leen waat doo leen xupp ngir ñu toog wax ji weesuut lii te sa gis naa ne message bi jàll na ndax am na koo xam ne xam naa ko tàggoo ne ma ne dafa bëgg dugg ci gaal yi lu ma xam wax naa ko taxul mu nangoo toog daanaa gis ay vidéo yoo xam ne sax ay nit dañuy faatu mu envoyé ko ngir mu tiit toog te du ko taxaw nangoo toog keroog ma gisee vidéo sëñ bas bi bi ma ko envoyé bi ma ko seetaanee dan ma bis ni ko tey toog na ndax sëñ bi jox ne ndigal loolu nag damaa jàpp ne képp koo xam ne bëgg nga ndaw yi réew mi war nga cee sant war cee bit ndax koo xam ne bu waxee ñaata million maanaam ñaata junni nit ñoo naroon dugg ci gaal yi faatu ci ñooñu te waxi sëñ bi tax nañu toog yebbi sénégal nag luñ bëgg nga dul xam bu sëriñ si waxut fi ne buñ waxuloon ñu ngi commencé sëriñ si dañoo waroon wax nangam sangam nit ñaa ngi dee ci géej gi bu wax a wax bu sëriñ si waxee day kilifa amul njaboot ñu jël wax ja dajji sànni wax ci lu leen neex yëkk lañ ci lu mel ne xamee moom da dagul xamat luñ bëgg ku mel ne sëñ Bass mii nag sans pas-pas mooy képp ku yab taalibe bi sëñ Tuubaa war nga li ma xamal mooy yoon wi dong nga yitteem mosuma fii kër gi Ndakaaru euh, keroog téye na ba une heure du bi may bi may tàggoo moom maa ngi koy wan coono gu am ci toogaay boobu ba tey mun ma fii may wax yow day bu ma tëddee quatre heures du matin dinaa yeewaat nekkaat ci tiis mi nga xam ne boobu bi may tàggoo moom une heure du matin jot na te quatre heures war naa jot kooku ko loolu mënut a am nelaw lépp ngir yoon bi. jikko jukkib alxuraan sax lu ci bare bare da koy tari ngir deglu am jottu sax mën a toog di ko mën a ak njabotam lu neew lañu mën a toog ak moom ngir mën a jëflante ak moom yitteem yëpp yoon wi la seigne bass bu la joxon tay rendez-vous ni la bis sangam ñew fa man nga fa ñew dok fa fekk ndax bu dikkee bu ko seigne bi soxla amatu jeneen yitte lu yitte seigne bi bu ko yoon wi soxla itam amul jeneen yitte lu yitte yoon wi kon ku mel non nak limi def deful ko bopam yoon yëpp la koy defal magal tuba gi rek taxaw na ci taxaway bo xamni képp ku am murit boo xamul la ci biir dëgg di ko gën a fonk man moo waxal boppam ni ma li ma doon def lépp sëriñ Tuubaa laa tegoon sama karam sëñ Muntaxa bi noppi sant na ko ci lool lu ci taxawaay bi xam-xam bi mu ci doxee ndax nekkul dafa dem ci Macky Sall rek ne ko dama bëgg màggal gi am wala sëñ bi neena gi am mu am déedéet ab taxawaay la ci am ba loolu bu doon ab jéng la boobu la dañ ba ñëpp di def seeni xew-xew fi mu ne ñëpp a ngi gàmm ñëpp a ngi màggal te taxawaay la ci am yi ci biir xam xam nañ la ci am kon ku mel noonu nag sag la ci yoon wi ku mel noonu élément la ci yoon woo xam ni képp kuy ab murit war koo ñàkk man de taxawaay boobu la am waaw buñ ko demee ba ñàkki ko bu bëtt ko dina dal ci kilifa yoo xam ne boobaa loxo dina dar gimiñ te yéen gis naa koo xam ne mi ngi ciy wax koo xam ne ci beneen tarixa la bokk di ci maanaam di ko gën a taawi rek nangam nangam li may wax seen ñàkk maandu gi rek waaye nit boo bokkut ak moom tarixa li war mooy nga maandu ci doxalinam. bu dee coow ak commentaire rek ci gàmm gi am na coow lu rëy rëy loo xam ne bu dee koy commentaire mën nga cee commentaire ba ba sa dund jeex du jeex ndax coow gënu ko rëy teewul murid yëpp am seen fulla seen fayda gisuñu ci def ay vidéo nangam nangam te loolu ku ne na ko te booba neex mën nga caa jaare wax ko ci waaye duñ ko def ci commentaire yi nga xam ne sax vidéo baa ngi ci murid yi cee commentaire sax bind naa sama Facebook ni mboolem kuy ab taalibe suñ Tuubaa nang ci génn nang ci màndu ab taalibe bi am fulla am na yoo xam sax du wóor am jotam lii ku ma déglu dégg nga ko ngir sama maanu kenn mosuma dégg muy wax ci yu jëmee noonu te bu dee xam nañ la cee ne man caa wax bu baax a baax ba doyal waaye duñ ko def yéen nag buñ nee kilifa yoonu murit ngay wax yéen bu dee ab internet la yéen a njëkk a jënd connexion toog di di seetaan bu dee télé la yéen a njëkk a taal télé toog di seetaan yéen a koy gën a soxla murit di sax te dara taxul lu dul gis ay fay ba exploité ko wax ci la ngeen bëgg a wax jaaree ci wax ci lu leen neex ci yoonu murit loolu nag na dakk ki koy def di ci wax xam naa ko baax xam na am na sama numéro naa numéro boo waxee junj doy na borom xel maa ngi koy diglu nag daa ju daa tàmbali xam naa fa mu bëgg a jëm waaye foofu la yem ak mboolem keneen ku ci bëgg a wax nag lu ko may nag fa ñuy ñoom xam nañ ko di wax murid itam nañ am fulla yu mel ni boobee bu ñu ci yóbbaale gëmuñu dara waxi sëñ bas yi nangam nangam yoo ñorul leen ay lii daa araam ak nangam yoo ñorul leen sëñ bas wax na faay la ñuy wër ngir jaar ci wax lu leen neex yoon murid nañ am suñ fulla am suñ fayda gën a gëm suñ Tuubaa gën koo jàpp jàpp njabootam gii asalaamaaleykum wa rahmatullah